ñu nekk nag ay soxna yu jàmbare lool seeni at itam kawe lool ñoom ñu la dee ci gerte gi la ñuy yëngu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo koy xolli di ko delloo waaye itam boobaak léegi ñu yàgg di ci yëngu mu nekk activité bu ñu xam lool bëri itam ay jafe-jafe yu nga xam ne ñu ngi ko ciy dund. gerte gi daal moom daa amee jafe-jafe lool gerte moom daanaka bu dee jënd mii gerte gi seer na mënuñu koo jënd duñ daanaka boo jëndee doo am dara doo génn dara waaw bu ko defee tam boo yóbboo dara bu dee jël jël delloo boo yóbboo daanaka doo am dara te ci la ñuy dimbandiku di dimbandiku sunu njaboot waaye daal gerte gi daa am na jafe-jafe. moyen bu ñu liggéey daal mooy sunuy jafe-jafe ndax bëgg nañoo liggéey waaye amuñu moyen ndax ñun amuñu ay financement amuñu dara dañuy ñëw rek bu ñëwee di fab ci gerte gi di xoolee di delloo man xoolee delloo yenn saa yi ñu perte yenn saa yi ñu fay nu yenn saa yi duñ am dara loolu daal noonu mooy sunuy jafe-jafe waaw. dimbali nag ban am mayoon yoo nga xam ne danañ am lu jënde di jaay loolu moom bëgg nañ ko lool. ah moom am na jafe ji nga nii maa ngi soj ni sax di fopp nii <laughs> waaye nag mag mun la toog ndax boo toogee say sidit yi day banku boo yëngoolu tuut tuut. nga am ci guraag la suba teel la ñuy bàyyi seen i njaboot jóge ci gox yu fasantikoo yu nekk ci dëkk bu sele bii di Touba ngir ñëw file ci gaar bu mag ngir wut lu ñu am ngir yóbbul seenuk njaboot ak risque yi nga xam ne moo nekk ci bilib liggéey taxul koppar ya ñu ci amee bari lool ba tax na ñuy sàkku ñu gën leen a taxawu ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel bokk ci itam lu jëm ci wàllu financement bu nga xam ne mën nañ cee liggéey bu ko defee mën cee gën a mën a yor seenu njaboot financé xaalis dinu lebal ñuy man di liggéey ci gerte gi buñ gisee jënd jënd buñ gisee koy jënd ñu jënd jaay am ci dara it loolu ba tey wax dëgg amagun ci ku ñu dimbali daal te amaguñ ci ku ñu dimbali daal daal ku ci dimbali moom ñu jël moom. xanaa ku ñu dimbali jox nu ay financement rek nuy jënd ak jaay di liggéey loolu daal ku ci jàppale woon moom ñu bu baax. ñu sañoon de mag moom ku koy dimbali moom day contact waaw bu ko defee moom lu ñu dimbalee rek. ñu xam ñu loolu lañ ñu dimbalee waaw. waaw ku dimbali daal moom ñu jël moom waaw ndaxte daal moom yaral suñu njaboot gi te amuñu dara lu ñu mën a liggéey lu ci gerte gi waaw. ku nu dimbali daal moom ñu jël moom. wàllum gerte gi ñoom itam seeni jafe-jafe yaatu na lool fa ñu jëlee gerte ga ba ci yoon wi ay jafe-jafe yu metti lañ ci jànkonteel ren ji sax de nee nañu gerte gi daana gën a baax. gerte gi daal na mu war a demee la demewul ren poids bi li mu war a joxe moom la joxewul léegi am na poids boo ko jëndee boo ko xollee il faut waaw te li ko jëndaat di ko jaayaat it daanaka bénéfice bi demee wul nam daan demee xam naa daal par rapport ak nam daan demee bu njëkk daal ak léegi bokkuñu. man daaw laa ëppale foofu. daaw laa ëppale foofu waaye nag gerte gi xëy na jeexul waaye dama gis lan laa lay wax. dama gis lan laa ëppale moom dama liggéey ci bopp. gerte gi daaw la ko saabu quarante kilo daa ëpp. pare nag moom pèse naa ko ba tey quarante kilo xam nga ñoo ko doon 65. a yooyu la jafe-jafe itam bokk ci ay koppar yu ñu leen di laaj ci yoon wi ñu jàpp ne takk der yi ñoo leen koy laaj te tegul ci yoon ba tax na jamono ji lañ ciy am néew na lool. jafe-jafe yi ñu am mooy gouvernement bi bu exemple mel ni daaw wala ren bu dee jënd juróom fukk mbaa juróom fukk ak ñaar ah nit ñi dem di jënd di dem bay jënd 300 300 yu manqué diis wala 300 yu teg kenn ñu dañuy jënd taaraaruñu yor suñu xaalis sàccuñ ko. dañ ko liggéey ba demee am ñu nekk ci yoon wi di leen laaj oto bu ne fukki junni ak i juróomi junni yu tegewul fenn loolu metti nañu muy gendarme yi police yi li may wax dama koo xam bu wér man damaa baana baana fukki at ak juróom ci laa daane montagne bu montage bu ma mosaa dem bu ma jógaa luur jëm si fii mille laa laa yor ca booba bala ma agsi mu jeex ci montage looleen metti na te dama jàpp ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk bu fekkee ñun ñëpp ko bokk ah bu fekkee ne oto ba daa départ man sama xalaat bi nga xam ne moo xalaat mooy boo ñëwee Koungheul wala Tamba wu fa moo jóge boo jógee ci gendarmerie wala police wala douane war na laa bind lam lay bind nga fay ko foofu ñu bind la kayit. gerte gi moom lépp a liibar wante liibar doonul foroot waaye ñu bind la leen bi boo ko fayee foo jaar ñu wiise la nga ñëw Touba waroo fay dara waaye montage boo romb fay ba fii ci gaar bi may wax ak yow. police yi bu ñu xëyee dañuy xëy oto bu départ joxe 1000 francs wala 2000 francs li may wax ñëpp gis nañ ko teg nañ ci seen bët loo leen métti na ko amul fu ñu ko fu ñu ko jooytoo gerte gi it léeg-léeg ñu chargé fii dem usine bu ñu demee foofa usine ngi soow naa nangam naa waaye bu ñu demee foofa oto yi dañ fay taxaw semaine wala fukki fan ak nangam duñ dee chargé ah ak abonnement bu métti léeg-léeg oto ñu di ko door 3 tonnes abonnement une in 500 15 tonnes euh, euh, euh, une tonne 500 une nangam abonnement loola métti nañu. ministre bi fii ne xamul gerte. ministre bi fi ne xamut gerte gerte gi dañ ko war a jox ku ko xam gerte jamono jamono yi euh, jamono yi kii euh, euh, ministre bu ko yoroon yàgg na ci jamono Abdou Diouf kookaa xamoon gerte waaye mboole ministre yi ñu koy jox xamul gerte duñ dem ci àll bi duñ xool tool yi duñ xam lu gerte war lu gerte attan duñ xam lu gerte yi boo ko déqitee mën naa xam nangam ak nang xamuñ ko xamuñ gerte Macky Sall jox na ko ko waaye xamul gerte. gi mu nekk liggéey bu yaatu lool bokk itam ci li nga xam ne mën naa suqali réewum senegal waaye terewul nag ay jafe-jafe yu métti lañ ci jànkonteel ba tax na nag ña ngay dal ci kaw jëwriñ ji ko jiite jamono ji jàpp nañu nag dese naa xam gi lépp liggéey mu nekk nag ab liggéey boo xam ne yaatu na lool ñu bëri mën cee gis seen bopp waaye nag mu mel ni nosu gi des na lool.